sol seeni costume cravate yor ay vocabulaire Victor Hugo ñëw créer benn écart de citoyenneté ou de d' individus de de citoyenneté patriotisme ñëw di buure nit ñi jox nañ leen juróom benn fukki at ak ñett ah. jëmalewuñ ñu fenn li ëpp ci Sénégalais bi ñu ñëwee ba 2021 à partir de 2020 grâce ak la créativité du génie créatif le blanc entre guillemets avec sa création internet téléphone l'explosion de la technologie ci la 80 pour cent de sénégalais yi nga xam ne dañoo jaar ci système éducatif bi nga xam ni traditionnel de base la ñu jàngal leen loo xam ne amalul njariñ réew mi et mënuñu cee jariñu ñoo ñëpp ñu découvrir ni dañoo vulnérable à travers le téléphone voilà ay populistes fële ca fële ca ñaay ba ñoom it ni ñoom ci asamaan si lañ jógee ay extraterrestres lañ ay martiens lañ ñoom c'est le messie qui doit venir pour changer la donne ñëw jaar en dessous de vulnérabilité wu nit ñi créer benn boule de feu montré sud du tunnel nit ñi daw topp leen nit ñi tamit lu tax ñu daw topp leen kenn ku ne da ngay dégager say responsabilité ci résultat bi Sénégal am parce que nous sommes une population à moitié inapte pas yi nga gis ci ay journalistes à moitié corrompus ay chroniqueurs yu malhonnêtes ay imam yu mën a fen ay intellectuels yu ignorants non c'est ça la vérité monsieur non c'est ça la vérité dama ni imaam ak ay doomu daara ak yu naafeq ñoo nekk ci mais ñi ñëpp xam nga bu ñu waxee mbir li may wax man ci réew mi laa dëkk de te dama koy càmbar xam nga ñun ñi nga xam ni am nañu chance wër àdduna bi mën nañoo wax lu bees ci réew mi jamono li koy defar léegi du lu ñuy jàng loo xam ne Albert Einstein moo koy bind wala Pinitz wala Spinoza wala Socrate y a 80 ans ci ginnaaw te mooy li am ci réew mi jamono li koy defar fi ne nii lu jamono di togg la il faut ñu am de sénégalais intelligents yoo xam ne dinañ am capacité wu nal seen xel xool li jamono di togg nii te du ko toggee Sénégal du ko toggee Amérique du ko toggee Europe ni Asie il faut nga def ñeenti continent yi doo ko mën a dajale ñëw jëlee Sénégal fii yóbbu ko feneen loolu mooy suñu objectif daf ñuy permettre bu ñu toogee Sénégal mel ni ku jënd bool bu bees teg ko ci benn robinet duy bàyyi taxaw ba mu fees nga tëj robine bi lépp lu ci nekk ci nax-nax da nga koy gis loolu moom mooy li may def. dañoo nekk ci réew moo xam ni politiciens yi dañuy fooy askan bi Sénégalais bi ñu découvrir leen dañoo vulnérable benn comme ni ma ko waxee ay populist ñoo xam ni Sénégal moo leen jur jàngal leen faj leen jox leen liggéey ñuy liggéey parfois sax ils se glorifient d'avoir travaillé 15 sans voler l'argent du pays xam nga loolu réew moo xam ni saret bu ñu bu am juróom-ñetti balankaar ñu takk ko te bu ne mbaam la ay nit di wax loolu maanaam nit koo xam ni yow réew mi dalaa jur jàngal la faj la jox la liggéey ngay liggéey nga liggéey fukki at ak juróom musulaa yoreel benn arriéré te ci bi ngay bëgg a laaj réew mi nga taxaw di wax lu bon Sénégal loo xam ci lu bon waxal nga ko réew mi ba mu des Sénégal yoreel na ma arriéré wu une semaine ci pendant 15 ans ci moment ñoom yoo xam ne bi ñuy jàng am na ñu leen dàqoon a jàng ba tey ñu ngi chômé amuguñu liggéey te pourtant mosuñoo sàcc saabu ci réew mi xanaa ñooñu dañ leen war a def ci ay vitrine di leen gérer ñooñu ñoo ñëw njàng mi ñu jàng mu sélectionné leen mu ne ñii li leen Sénégal jàngal ci wàllu atte la yéenay dem nekk ay juge ay juge ay magistrat ay avocat ñii Sénégal ni leen yéenay les ingénieurs génie civil yéenay defar pont yi yéenay defar échangeurs yi yéen a war a defar gaal yeeg bato yi genre ñii mu ni leen yéen a yor wàllu xaalis yéenay nekkee agent impôt et domaine ñoom ñëpp ñuy liggéey di tedd ci réew mi ñun ñi nga xam ne Sénégal dañoo nawtal defu lu ñu dara lépp lu ñu am ci réew mi depuis 40 ans ñuy tukki ñoom am nañ ko lu ko raw ci biir réew mi te réew mi leen ko jox ñoom ñoo ñëw ni léegi ñoom ñoo indi lu bees quoi ñoom fan lañ jóge xanaa Burundi lañ jóge wala dañoo wadde ci asamaan si ñoom lu bees li ñuy wax ni moo nekk ci ñoom ba ñu war a jëlee réew mi fi yóbbu ko lu bees loolu fan la jógee mais réew ko def ci ñëw donc mburu foog ko fëri ñu ñëw di baratine nit ñi léegi ñoom respecté teewuñ ci seen biir ñi nga xam ni ñoo yor droit bi war a atte war a saytu ñoom ñoo ni képp ku fen ci réew mi ñoom ñoo la war a atte ni da ngaa kenn ci seen biir moo fen ci réew mi juridiction yooyu ñoo ko woo ay nawlem yi mu jàngandool Sénégal bi ko dénk li mu maîtriser moo dénk ñële la ñu maîtriser ñoo ko woo ni ko kaay ñu atte la mu bañ ni du fa jaar ñoom ñoo ko atte de pourtant takkal ko médaille ki dàq fen ci réew mi mu fay ci 200 ci Afrique musuma koo gis le plus grand menteur de l'histoire de notre pays et d'Afrique il s'appelle monsieur Ousmane Sonko c'est pas moi qui le c'est la justice sénégalaise qui le dit ñooñu nga xam ni ñoo jàng moom comme ni mu amee saytu télé yi xam ni yéen fayu leen impôt mu leen ciy bëgg jaar def sa sauce sorcière ñu respecté ko ko ndax Sénégal ko ko jàngal moo war koo saytu yeneen doomu aadama ñoo saytu ni ko kaay ñu atte la ndax dangaa am benn xale bu la jiiñ yàkkataan ni ko tu le plus grand corrupteur de la jeunesse mooy maanaam yow yaa gën a mën a noggatu xale le corrupteur de dentre d'entrejambe de la gente féminine et le corrupteur d'intelligence de la gente masculine kooku la sénégalais yi wëlbatiku dem jël ko jox ko réew mi def ko premier ministre mooy on est dans un pays inapte réew mu nit ñi dul xalaat ñun loolu moom mooy suñu teewaay ci langu politique gu réew mi dañuy fowe askan bi une fois de plus pour revenir ci assemblée nationale bi pour déclaration de politique générale bi Ousmane Sonko dafa ragal faire face ñi nga xam ne ñoo di député yi ñu koy laaj yenn laaj yi parce que boo demee foofu assemblée peut-être am na ci yenn question yoo xam di nga fa fekk député def benn débat public ak yeneen leaders yi. donc xam nga. Mhm. dagguma la excuse-moi Sonko tout le temps dama koy wax histoire du Cheikhou Chérif xam ngeen ko dama koy répété de Cheikhou Chérif en benn xale. tanzanien boo xam ni dafa mokkaloon juróomi aaya benn journaliste anglais doon def ay recherche ci Afrique les super doués ba daj ci moom mu dem jëli benn journaliste français ñu tëgg benn deal c'était arnaque bi ëpp solo ci histoire monde musulman wu Afrique noire ñu ñëw di arnaque nit ñi Cheikhou Sërif mais xale la woon juróomi at la amoon di taxaw di tari juróomi aaye fu ñu dem nax nit ñi dajal leen ci esaat lekk seen xaalis mais bi mu màggee moom xam ni mu ngi ridiculiser wu da caa jóge dem defi boulanger léegi boulanger lay def Ousmane Sonko c'est la même chose histoire u Pastef ay doomu aadama yoo xam ne Sénégal comme ni ma ko waxee moo leen dajale ñu leen di fay xaalis bu bari xaalis bu bari ci seen loxo ñu dajaloo ni attention ñii ñuy fay ni ñoom ci seen bopp gis nañ ni ñoo ñuy jiite te dañoo jubadi kon ñun mën nañoo fexe ba jógee ci ñi ñuy fay ñuy dem di fay ñu ñëw teg seen aw fen fen wi di jàpp sénégalais yi am ci ñoom yaakaar ñëw ba réew mi dal ci seen kaw mais xamuñu fuñ jëm ak askan bi malheureusement différence su Cheikhou Chérif ak projet bi ci boppam di ko ko gëmloo mu koy boobu magum jëma la te bopp bi dara newu ci mu dem bëggam ko nag moo tax il est un monstre vis vis de ñi nga xam ni sax ñoom ñoo organisé wu deal bi ci seen kaw moo tax problème moom mooy ciy reflété ñàkk gis bi mu ñàkk gis gi bokk ak le président Diomaye Faye ak ñenn ñu ëpp ci ñoom parce que xam nañu il commence à déconner fi mu jëm ni bokkut ak fañ ko organisé woon juste teg la dal na ci suñu kaw ñoo war a ñoo mën a dëkk ñëw ensemble national mais da ko tàmmut Ousmane Sonko li mu man mooy tëgg ay concert dajeek ay fansam xam naa bu neexoon baat moom dina def diyo ak Wally Seck loolu wóor na ma maanaam taxaw nit ñi di ko vénérer moom problème boobu la am quoi nit ñi di ko tàccu yàllaa ngi yàllee ngi yuusaa ngi yuusu nduur a ngi nii moom loolu la gëm moo tax Ousmane Sonko ñeme ngeen jàpp ngeen ni Ousmane Sonko bi ma xam xam ni mënul aligner ñaari phrase yu baax ci wolof dafa dotom et déggut olof déggu tubaab kooku moo war a dem assemblée nationale bii ma gis fekk fa député yu ko gën a jàng ëpp ko vécu ëpp ko parcours ëpp ko xam-xam gën koo respecter les codes juridiques vestimentaire ba pare mal intentionné nag nara mal intentionné ci kawam jëlale naa sax intellectuel député yi mais damay taxaw rek ci Koura Macky maanaam Ousmane Sonko mooy imaginer dem assemblée nationale Koura Macky naan ko ana Adji Sarr Koura Macky ma ma xam ci ciliac sur ciliac entier ak weer di ko regeju loolu Ousmane Sonko mënu koo dékku monsieur si vous voulez la vérité soyez sérieux réew mi mu ngi jëm au bord du gouffre ñu ñun nous sommes sortis de la matrice am na sénégalais yoo xam ne xam nañu li xew xam nañu monde bi fa mu jëm ak Sénégal fi mu jëm ñoo ñu laay interpellé ñu ñëw ñu nangu réew mi defar ko lii yëpp ay tappaleel te il faut ngeen jàppale ñu ci yéen journalistes yi. Pape Makoura d' après li monsieur Thiam <laughs> li monsieur Thiam wax wax lépp c' est le premier ministre quand même te lu ñu